ñu ma ci jàppale euh, ñëw nañ tey gisante ak ministre de l'intérieur waxtaan nañ ci mboolem point yi nga xam ne moo aju ci commission yi nga xam ne moom la COMAF am lu jëm ci jàmmi taalibe yi jàmm askan wi jullit yi nga xam ne dañoo dëkkee Medina Baye ak ñu war a gàmmu si euh, laaj nga ma ndax am nañ satisfaction ci waxtaan wi wax dëgg yàlla waxtaan wi ak ministre de l'intérieur tey waxtaan bu yaatu la wax nañ ci point yu bëri fekkee ngeen ko euh, mun nañoo wax ne am nañ satisfaction cent pour cent waaye nag génnee nañ fa ak xel mu dal ndax am na ci point yu bëri yoo xam ne nii jaar na yoon mais am na ci point yoo xam ne nii yàggal na jotaay bi comme wàllu ndox mi ak wàllu courant bi nga xam ne abonnement yi nga xam ne nit ñi dañ koy faral di soxla mu yéex wala bu mu jotee sëriñ bi demandé ñu yokk ko pour mu nekk occasion ci barkeeb Baay ci barkeeb sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuy gaawaale ci amale occasion am am am ndox am courant bu gaaw amit euh, defaloo yoonu téli bi ak yu mel noonu affaire tëli yi ak yu ñu bëggoon a yokk mu jëm ba avenue sëñ Mamoun Niass avenue Cheikh Ahmad Tidiane yi ak yeneen yu jëm kawan yooyu daal daanaka moo yàggal jotaay bi tey àgg nañ ci point yoo xam ndax di dëgg yàlla ministre bi jéem na lu mu mën point bu ñu agsi dana am ku mu waxat laaj la euh, wax la loo ci man bu fekkee am na jafe-jafe ñu discuter ko bu laajee mu oo kilifa ga wax na ne dana ko def ba essayé na ci kenn oo na ko yaakaar naa mooy SONES problème bañ ci amoon mu ne ko dana ko régler kon daal mën nañoo jàpp ne waxtaan wi jaar na yoon Ah, bu dee dal xel la dal na xel bu dee yaakaar la tamit am na yaakaar ah, rafet nañ njort bu baax ne gouvernement bi incha allahu taala li nga xam ne moom moo leen war engagé wu nañ ko def waxoon nañ ko ci CRD ba ci Kaolack tey wax nañ ko pourvu nañ ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàpp lu ñu jàppale leen. mën waaw mën nañoo xaar ji gàmmu gu mucc ayib ndem soob na yàlla ànd ak ne mucc ayib dafa jafe lool waaye daal xëy na mën nañoo jàpp daal ne pourcentage bu mag ci bu dee cent la mën nañoo jàpp ne daal ne 97 pour cent ne mën nañoo jàpp ne gàmm gi dana tegu ci yoon te loolu yaakaar naa 60 pour cent sax ku ko am dara la mën nañu koo xayma nag confirmer ko lu may gàmmuwaat dafa jeex waaye ñu ngi am yaakaar ne li ñu engagé bu fekkee service yi doxal sant yi ñu leen di sant wóyal nañ li ñu leen wax ñoom it la ñu engagé wu def nañ ko yaakaar naa ne incha allahu taala yëpp dana jaar ci yoon. Cheikh ɓe dabari aduna te waxna sous région bi te bu doon dalal xel gouvernement bi parce que dëkk yu bari mën ta bàyyi fate waaye wàllum terrorisme dafa ne lëmbee dëkk ba te bu doon dalal xel kilifa yi xelu askan bi ci jëm ci wàllu mel noonu ban message nga ciy wax ci yéen waaw foofu li ma ciy wax rek mooy njàngaleem mën naa Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu Cheikh Ibrahima Niass dafa ñëw jàngal ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nabiyu salaam mooy le prophète de la paix noonu la yoree njub li noonu la yoree yonent gi noonu la yoree tamit leer gi waaye noonu la indee jàmm ba nga xam ne euh, jàmm ji daf ko tasaare fépp ci àddina bu ñu toppee nag jàngale yontu bi sallallahu alayhi kon jàmm rek mooy am li àddina bi li ciy xew ci ay jafe-jafe ci terrorisme ak yu mel noonu bu ñu toppoon jàngale yontu bi sallallahu du ci am kon mën naa dalal xel yi taalibe yi ak soppe yi ne oote bi Cheikh Ibrahima oote oote ku ca Kóosi oo àddina bi jullit ñi ñi gëm pour ñu topp ko ci yàlla mu yóbbu leen ci yàlla fóot seen xol defar seen jikko def ci ñoom jàmm mu bàyyi moomu niti jàmm la woon jàmmam googu ci la tasaare fayda bi fii ci senegal ak ci biti réew ba ci Nigéria ba ci Niger ba feneen ak feneen yorut paaka yorut sax puso yorut ngànnaay yeneen ngànnaay wax noppi yorutoon média du benn rajo wala benn télévision bu mos a topp Cheikh Ibrahima Niass radiyallaahu anhu yàlla la àndatoon ak yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Tidiane seen leer ànd ak moom yàlla dimbale ko ba mu yóbbu fayda bi foo xam ne nii tey li ñuy seetaan Nigéria yëpp ci ay millions millions millions ci jamonoom la ko réalisé moom du lu ñëw gannaawam li ci yokk ci gannaawam mën nañu wax ne pourcentage bi xëy na 6 wala 12 8 pour cent lay doon ni jumaam ji ngandee Medina Baye ni mu toll noonu yëpp bàyyi ko tabaxal boppam luñ ci def gannaawam rek dañoo xaw a euh, pentiraat wala ñu def ay karo wala nangam waaye yaa yaatalaguñ ko sax yàlla na yàlla may ñu yaatal ko kon mbooloo mi topp bàyyi tey bàyyi ko liggéeyal boppam gannaaw gi nag mu xaddam kon jàmm jooju mooy roon te amutoon presse ne arum ridal baali la soti diini li jiili jadidi misaalan dem ba ne li yan sura diinan laa yuridu qitaala dama bëgg a dimbale lislaam sans guerre kon jàmm jooju su ma ci sukkandikoo ak xalifa bi ñu yàlla may muy Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass muy oote ci jàmm ne pays bi jàng ak jàngale ak jàmm yàlla ak liggéey moom lañ ko sampee ak i rakkam Cheikh Mouhamadul Maahi Cheikh Mouhamadul Amin ñu ci topp waaye du ma fàtte mukk imaamul imaamul akbar Cheikh Jean Ali Cissé mi nga xam ne moom ko doxkati jàmm la nii maamam doon doxee jàmmam bàyyam Sidi Ali Cissé xalifa daan ko doxee jàmm ak i njabooti Baye gi yëpp mboole muqaddam yi àndoon ak Baye ak taalibe bàyyi ku leen xam ci Sénégal ci àddina ak jàmm la kon yaakaar naa ne le tourisme du nakk loo xam ne dafay yàq suñu gàmm nekk na loo xam tamit ñun bokk nañ ci ñu war a nekk numéro un wala ci sàppe njëkk pour xeex jafe bi nekk ci àddina bi ak joxe exemple bu baax pour fekk musiba ak fekk fitna fegal ko Sénégal fegal ko Afrique fegal ko àddina bi yëpp kon jàmm gi gàmm jàmm la te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ñuy def tafaawul te ki nga xamné mo jité gam bi mu Cheikh mohammed ibn ibrahim yass ay bi mu tan moy nasru min allah wa fatun qaribun wa bashiril muminin La faïda tijaniya s'est réalisée. Alhamdulillah.